abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy suivre leen di wax ngeen di way di abonné te ngeen di j'aime vidéo bi dina ci am solo mën nañ ne nag médiation bi nga xam ne rek jamono bi ñu toll nii ñu baree bari ci askanu sunu gaal ñi ngi koy xaar ci ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko dem pour waxtaan ak moom mën nañ ne nag gis nañ ñenn ci ay leader politique ku ci mel ne Bougane Gueye Dany mi nga xam ne rek mën nañ ne moom mii mu ngi solo dàllam di def tour ci biir réew mi ki nga xam ne moom mooy président de la république moom tamit mën nañ ne euh, kenn xamul lan la bëgg jamono bi ñu toll nii ci nekkinu réew mi ak askan wi ba tax nag jamono bi ñu toll nii ñu gis kenn kat moom mii di Bougane Gueye Dany mi ngi def li nga xam ne rek moom mooy ay nemmeekoom euh, doore ko nag ci ki nga xam ne rek moom mooy xalif général des Niassènes Cheikh Ibrahim Mahi Niass mën nañ ne nag waxtaan wi nga xam ne rek séq nañ ko na nag ci lu delloo si jàmm ci biir réew mi naka noonu nag gis nañ ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko mi nga xam gouvernement bu Antoine Félix Diome daal xamle que bu fekkente ne bëgg nañ jàmm dellu si ci réew mii nañ ut ñoo xam ne nag dinañ dem waxtaane ak Ousmane Sonko moom mi nga xam ne moo fi indi fitna wante nag Sonko ne nag tontu du forox man mi indi wuma fi fitna ñi yor fitna ji jamono bi ñu toll nii xam nañ ñan la kon nag man sàkkuma kenn kuy dikk ci man pour di def médiation ndax bu fekkente ne kuñ waxtaanal rek pour jàmm dellu si ci réew mi du kenn ku dul président de la président moom ma nga sa dialogue ba nga xam ne rek mën nañ ne jamono bi ñu toll nii moo ko gën a yitteel te tamit moom moo gën a nekk farataam gannaaw nag ay doomi aadama yu nga xam ne rek ñàkk nañ seen bakkan fii ci biir réew mi ci ay manifestation yu nga xam ne rek amoon na fi ci fan yi ñu génn boobu ba tey ñu doon xaar ki nga xam ne rek moom mooy président de la république lam sa jot a xam ne nag du lenn lu dul bala mu sa yëy yàbb yi dafa xaar ba dialogue bi daal di jeex loolee gënoon a